Idrissa uh, Ba maa ngi lay nuyu. maa lay fay Sabine. Idrissa uh, Ba nga nekk économiste uh, chercheur consultant expert de la mondialisation et du commerce international euh, analyste géopolitique déjà ñu euh, wax ci Grand Magal de Touba euh, économiquement lan lay apporté réew mi ci wàllum koom-koom ban analyse ngay def Grand Magal de Touba ak koom-koomu réew mi. waaw Magalu Touba. loolu mën nañ wax ne que suñ borom yàlla subhanahu wa taala ak euh, yonentam bu màgg bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ko baaxee Sénégal ci li man sëñ Tuubaa xëy ci réew yi mënoon na feeñ ci beneen dëkk mais yàlla ñun la ko baaxee bu mu wàcc fii ci ñun wàcc ci Sénégal bon nag kooku nañ ko sant yàlla te xam ne du du du du du loo xam ni c'est gratuit quoi taw feex la taw feex la waaw donc. Euh, màggal gi moom euh, yokkute la rek parce que chaque année bés at mu jot nga gis ni mbir mi boo ko nattee ren fii bu déwén ni incha allah mu dépassé ko donc loo xam ne dafay yokk rek te kenn mënu ko tibi loolu mbiru yàlla la yàlla moo ko créé donc sur le plan économique man dama yaakaar ne lu baax la pour pour askan bi lu baax la pour ñuy liggéey opérateur économique yi commerçant yi transporteurs yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñëpp màggal sax leen di indil tawféex parce que day yokk seen koom-koom day yokk seen euh, seen chiffre d'affaires voilà usines yi di yokk seen production euh, yaa xam boisson yeex ñam yeex yu yëpp élevage yi ganaar yi yu yëpp yëpp dañuy liggéey te day gën a yokku rek donc lu baax la ci réew mi dañ ko sant yàlla sant ko suñu borom subhanahu wa taala sant Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom euh, maam sëñ Tuubaa ba fakal dafa dégg la yàlla wax mu xam ko teel koo xam teel ko jëfe ndax yàlla daf ne moom li mu bind ci àddina benn bunt moo fi nekk benn benn rek ku koy jaamu bëgg a ci moom bëgg a ñëw ci moom bëgg mu déglu la benn bunt nga am pour jaar moom bunt bu bunt kan la buntu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mu xam ko nag dal di tëj yëpp foo ko fekk rek mu ngi tàgg Muhammad di ko liggéeyal di ko jaamu di ko tagg di bind di voilà donc non seulement jàng alxuraan mais boo xoolee œuvre maam Seexul Xadiim yëpp yëpp yëpp yëpp dégg naa li mu bind bind na lu toll ci sept tonnes sept tonnes macha allah du caaxaan donc wala pour donner un exemple rek li tax yàlla euh, ku muy fay ku ko liggéeyal mu fay la nopp euh, def koy ful. Hmm. man nag dama foog ne bon loolu ñun dañ cee war dañ cee war a kontaan gërëm ci yàlla te gën a góorgóorlu nag gën parce que. dama lay xamante benn mbir. Mhm. maam Sëñ Tuubaa dafa wax ne Sénégal ñaari mbir moo fi war a nekk ñaar amul ñett amul ñeent amul juróom ñaar moo fi war a nekk liggéey ak jaamu yàlla waaw nag man gëm naa ko Sénégal tey bu ñëpp bàyyi woon caaxaan jublu ci jaamu yàlla yaa xam la nga gëm ñii gëm nañ yonent yàlla Insa ñii gëm yonent yàlla kii ñii gëm Muhammad ku ci nekk nga jaamu sa borom jàmm ko nga gëm mais mu nekk lu dëgg ci yow ñu boole ko ne ñu ñëpp àndandoo liggéey liggéeyal pour réew mi mais defe naa Sénégal dana dépassé yu bëree bëri bëri voilà. Hmm. Euh, euh, tey jii nga euh, wax waa ci côté koom-koom revenu yi muy généré mais mhm. mais aussi est-ce que le fait que ñu si bëri dañuy toog ba si bëri duñu liggéey comme actuellement gis nga ni ñu déserte dakaar ñëpp nga Touba est-ce que amul impact négatif ci koom-koomu réew mi waaw mais non non c'est-à-dire que euh, kooku kooku mënu mënu indi impact négatif ma jox la exemple. waaw par exemple magal bu jotee xoolal usines yi defar ndox ñu defar ndox yi bouteille yaa xam mbuusu ndox yi bouteille ndox yi mais ñoom dañuy am une parce que demande bi day yokku ñu koy soxla day gën a yokk encore mën a tàng nawet la demande elle est exacerbée elle est fouettée soxla naan parce que tàngaay bi foo. tourné nit ñaa ngi naan ndox yor seen bouteille ndox donc ndox boobu ñi koy liggéey de dañuy yokk quantité de production bi nga jël ganaar yi par exemple màggalu Tuuba moom moom xam naa ne képp ku fa di jaare di nga lekk ganaar donc ñuy def élevage agriculture mais dañu yokk seen quantité de production ah nga jël ban ci ban secteur encore transport bi xoolal transport bi buñ ne màggal jox la mais y a même ñi nga xam ne actuellement dañu spéculer mais ci yàlla caa yokk prix de transport yaa xam dégg naa am ñu jóge ba maal ñu jóge Gambie ñu jóge Guinée Bissau ñu jóge Mauritanie ñu jóge fu nekk sans compter maintenant ñu nekk bi bitim réew ak yow yi ñuy jël yooyu yëpp dafay yokk day dafay yokk maanaam activité de production euh, euh, euh, nga xam ne boo tu vois nit ñi li ñuy soxla dafay dafay gën a yokk rek quoi secteur boo ko rek dafa yokk maanaam la demande la demande est devenue plus forte léegi nag pour que demande boobu ñu satisfaire ko il faut que offre bi aussi suivre le pas daal di yokk maanaam sur le plan de la production ñoom il faut ñu liggéey pour yokk quantité bi bu ñu doon laaj fukk léegi dañuy laaj ñaar fukk la ñuy laaj donc il faut ñu defar donc ñu dañuy romb fukk di dem defar pour pour pour ñaar fukk par exemple genre exemple lay joxe voilà mais donc en aucun cas euh, ku am une permission vingt quatre heures 24 heures mënu par exemple bon euh, l'économie boo jëlee sax waxuma sax magal mais la tabaski tabaski boo ko xoolee c'est une journée euh, bu ñëwee également c'est pareil mais donc c'est le même schéma que de Touba c'est un événement religieux majeur qu'on inscrit dans euh, a ko wàññi mm-hmm. est-ce que euh, tey ji ku wax euh, murid wala mouridisme gis euh, solidarité bi nga xam ni moo ci am pour réaliser ay projet yu mag a mag comme Masalikul Jinaan Université Cheikh Ahmadou Bamba modèle économique du mouridisme lan nga ñu si mën a wax Idrissa Ba waaw li ma mën a wax mooy yi nga tudd n'a pas encore entamé la phase la phase de, euh, euh, effective de réalisation nga xam ne moi je fais partie de l'école économique du professeur Kassé de l'école économique de Dakar ñu ma demandé ndax man UNISA dama bëgg nga xa nga xool nga defal benn étude sur le développement du Sénégal à partir du mouridisme mais bi muy wax loolu ma ne ko mais professeur da nga fàtte que ne euh, dans nos théories ñun ñu jàng John Maynard Keynes il a fait une théorie sur la demande effective à partir de la de l'équation quand même tu peux pas L. C'est-à-dire quand tu réunis tous les capitaux et toutes les main normalement, qu'est-ce que C'est la production. C'est une, une réalité qu'on peut vérifier. Donc, euh, bu jëlee xel xom tey sëñ Saliou Mbacké yàlla yàlla yokkal leeram il a donné un exemple parce que xel xom daawuloon béy rek non non non dafa am lu mu doon jàngal lu à partir de la production on peut commencer les, la première phase d'un développement endogène global et durable moom xel xom bay na teg na li des léegi mooy la phase de transformation industrielle c'est le second palier alors donc loolu boo ko xoolee mais le mouridisme peut être le socle du développement du Sénégal parce que euh, le talibé mouride par exemple il, euh, bon boo bon ils sont en de faire bouger quoi l'économie du Sénégal ils sont partout dans le monde et ils très entrepreneurs liggéey rek moo nekk seen bopp liggéey dem uti ëllëg donc léegi ñoom man j'aurais souhaité que ay ay ay ay capitaine d'industrie ñoom ñu jóg na léegi dans la phase industrielle du Sénégal de transformation tout azimut tout azimut lépp lu ñuy diggante bitim réew mais ñu fexe ba defar ko fii par des usines ça va créer des emplois yokk économie yokk croissance et cetera et cetera voilà Euh, est-ce que tey ji mën nañu appuyer si euh, euh, ba pour mën a développer li ñuy wax tourisme religieux. waaw le tourisme religieux boo ko xoolee boo exemple Magal bi mais Magal bi taalib yi fan la ñuy jógee xoolal adduna si yëpp ils de partout de l'Asie de l'Europe de l'Océanie de l'Amérique latine ça vient de partout. partout. Donc, euh, le mouvement-là, mouvement que le touche-là, euh, destination Sénégal, mais le ministère du Tourisme, euh, mon imagination, il n'y a pas que lui, même des opérateurs économiques sénégalais auraient pu prendre euh, cette opportunité, il y a une rôle, on a quand même boosté justement ce tourisme-là, à partir d'un événement religieux, annuel, nga xam ne c'est récurrent. du dellu ginnaaw kenn mënu ko téye li yàlla def la ça va aller crescendo voilà. Euh, aussi ñu gis ni côté politique euh, su ñoom politique yi ñu ci bare bare euh, dañuy fexe toujours di am proximité ak Touba lan mooy expliquer loolu. waaw kooku euh, sëriñ loolu tam yàlla def la rek yàlla xam nga yàlla subhaanahu wa yàlla bu defee ku mu neex mu naqari la la muy la muy ci dafay am kenn mënuñ ci dara moo tax. Euh, dañu gis ne que depuis Sénégal sur le plan politique depuis Senghor ak Khalifa si Dia ñëpp ñu gis ne que président ya daan am chance lonko euh, avec les xalif la ah gis nañu ñoom yëpp seen demin gis nañu seen doxalin gis nañu résultat yan ca am donc ñu jàpp ne que Touba ah yàlla nag mooy fal mais dafa am loo xam ne itam yàlla da koy jaaree ci loxoy doomu aadama pour mu gën a gaaw waaw man daan jàpp naa ne que politicien bu bëgg a réussir dans le bon sens waxuma nag politique politicienne parce que yàlla kenn mënu ko nag te kuy politique ba dugg Touba war nga yiw ànd ak dal respecté su bopp respecté nit ñi respecté dëkk boobu loolu moo parce que yàlla kenn mënu koon nax kuy bëgg a développer Sénégal par par une politique il faut nga jub nga sell nga nga nga am yiw mais gis na li fi xewoon yal na ma yàlla baal ñu iblis ngemb ñu bëgg a yàq réew mi di def yàlla moom yàkkamtiwul loolu wax dara mais day toog dara seetaan rek mais bés bu ko fi bëggee jëlee dana ko fi jëlee exemple la rek man day gëm naa ne ko Touba daal képp ku bëgg a liggéey seeroon jub am yiw. Mhm. Ah. Ba maa ngi lay remercier bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. Ah, ok. voilà may fàttali ni Idrissa Ba économiste nga chercheur consultant expert de la mondialisation et du commerce mm-hmm. international analyste géopolitique économique ah. international jërëjëf.